بسم الله يكفيني أقال يا الله صلي بقى أبي بفيق يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسيء ما للوعد لذيك يا الله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 عزاري ملاسي أرجو برامتي ألا أولا تيادر أن منك يا الله مليم يميني وقل بزال يا مليك mbokk yi ñu seetaan Mawahibou TV euh, Madina Info ñu ngi fii tey ci daaru Tanzil comme ni leen ko waxee woon léegi diggante daaru Tanzil ak daaru Salaam da kilomètre la ñu nekk fii ci ndorteelu liggéey bi taxaw ak jëwriñ daam jëwriñu euh, kuréelu jaalibatu maraaxib fii xidmatil xadim ñu ràññee leen léegi ñu ràññee leen seen liggéey bu am solo bi ñu doxal ci masaalikul jinaan ak mboolee mosquée yi nga xamante ni ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci réew mi sëñ daam ànd ak jëwriñu jël Jili Touré ñëw seen Jili Touré ñëw fii ci Xelkom tey ñu nekk fii ci tooru daaru Tanzil ak mbooloo mi ngeen xamante ni moom ngi leen àndal ndaka nga gisee euh, ko mu euh, ren bi waa alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant suñu bu baax sant suñu Tuubaa bu baax ndax it lii lépp ak tawfeex la rek ginnaaw loolu it ñu ngi ziar yu mbokk taalibe yi nga xamante ni ñoom ànd liggéey bi ñuy waxee ci kàddu daara jaal bi ma xidmatul xadim di mbooloo mi liggéey suñu Tuubaa ñun nag leen ñoruñu mu liggéey suñu Tuubaa képp moo ñu ñor te de dañuy sant suñu Tuubaa bu baax te liggéey bi yaakaar naa ñu ngi ko door depuis ajjuma euh, lañu fi ñëw te loolu lépp it ak tawfeex la ànd koog suñu suñ suñ jiili muy fii si tool yi Maodo Mouride jógee Maodo Mouride ba liggéey ba noppee ñu fas yéene takkuwaat yi ñëwaat si tool yi Daaru Muxti yi kon loolu lépp dañ ci sant suñu Tuubaa bu baax te xam ne maam ñun dara ñuruñu amuñ jën yitte ji jën yitte jur jur yitte sëriñ bi tey lii nii doonte sori na lool waaye ak tawfeex ak sant ndax it yaakaar am na kàddu yi ma déggoon maanaam euh, ñi ñëw fii ni bërëb bi ñu maam ñu Seex Saaliw tànnal boppam lañ du ñëpp fi ñëw ndax it mbooloo mi bëri na lool kon na nekk xew ko yaakaar naa kenn xamu nu mu toll kon amaana bu fekkoon sëriñ bi dafa bëgg mbooloo kase wala boog bëgg ñëpp ki kenn ku nekk ñëw fi kon yaakaar naa liggéey bi dina dina donte taw fexe na ndax mbooloo yu bëri na lool waaye kon bubaa fii moo xel comme daanaka du am du am du am wute waaw kon nag sant suñu Tuubaa bu baax sa loola ba mu tànnee ngir liggéeyal ñu fii nii ndax it fii day nekk bërëb bu sell bu làqu lool boo xamante ni maanaam ku suñu Tuubaa tàkka dimbaliwu dëgg doo fi ñëw ndax it umpaliwu ñu ne yoon bi metti na lool tey jafe na lool te sori na lool kon nag maam sëñ bi kàtt na la rek moo moo waral nga ñëw fi loolu yi dañ ci sant bu baax a baax ñun nag ñooy daara ji Al-Minane Khidmatul Khadim nekk Masaalikul Jinaan yor wàllum entretien bi foofu yitte jëpp it mooy liggéey Sëriñ Tuubaa rek te ñun moom fépp fu amee dañ koy xencu saa su nekk waaw kon nag dañ sant bu baax daanaka ni ñu ko si mbokk taalibé ñu nekk fii daanaka ñoom it nekk ay borom jàmbaar lool yàgg nañ nekk si liggéey bi te it ñoom doo doo doo xam seenu sonn ak seenu metti naag méttiwut surtout soxna yi daanaka boo si nekkee di liggéey sax day dem mujj ñoom dañ lay soññ su bëree bëree bëree bëree bëri te loolu nag ak nangu la te li li suñ Tuubaa wax rek soxlut alal ju bëri waaw soxlu doole ju bëri bu xol yi nangule tax nit ki bu xolam nangule sëriñ bi rek sa yitteeg sa lépp lay doon sëriñ bi bu la leeroon na lii lu diis la mu diis gan gan gan yow sa yéene sa yéene ak sa yitte mooy lii li sëriñ bëgg la te dinaa ko fas yéene yëkkati te a yeggale foofu maanaam moo mooy mooy maa mu am pas-pas ak ak yéene ak nangul gi dëgg si yow sëriñ bi kàttan la mu jug tey ñun foofu rek lañ taxawee ci liggéey suñu Tuubaa bi dañ sant suñu Tuubaa bu baax sant suñu jiir mi nga xamante moom lañ ànd te yaatu yi te bëggal ñëpp tawfiix ak jamm waaw tay lepp lo xamanteni ni liggéeyal tuwa la mi ngi ci fasiyene di soñ ñëpp ndax jamono bi yaakaar naa euh, jafe na lool ay tuutànk yu melni nak fi fii anaka lu ci upp ay tuutànk lañ ak i mu dagge leen indi leen fi ngir am ngir ñu bëgg am tawfiix lol tawfiix deug la kon ni momi ñu ngi koy sant bu baax waaw nak it maanaam li war mom mi ngi ci wax deug fa yalla waaw nañ ko ñaanal ci borom kàttanal ko Sëriñ Cheikh Sall yàgg ko jox ndigal ñu yàgg ko ak mom sa su nekk rek ñu ci sant Sëriñ tuwa bu baax di sant it waa Mawahibou TV ñu leen sant bu baax ndax gis nañ liggéey bi ak taxawaay bi saa su nekk fuñ gëstoo dañ leen fay gis te loolu mooy maanaam bëgg sëriñ bi waaye nag maanaam yàlla leen turu muwaay bi muwaay bi boobu noonu ngeen di wuyu yàlla yàlla yàlla leen wuy si ba fa fépp foo xamante ab ceneer la te te muwaay bi dafa dafa leeral rek yàlla ngeen fa yegg incha allahu rabbi sant nañ suñu tubaab bu baax si seen jëmm ak ak mboolem bokk yëpp yi xamante ni ñoom lañ ànd liggéey bi ñu ngi sant bu baax a baax alhamdulilah